sama xarit la lon xolale ki ne mais actuellement ki ne nurootul sax ak nit joy na jooye jooye joy jeex ne lekul ki ne naanu man sama xarit bima gis tay buñ ci taxawul japp ci damay xalat sax mu am ay dépression may li nga wax graw na de looy wax ni lolu am ku ki Kiné nga gis ko tay deug la problème bi kumu dal nga xamne metti na mais nak amna no xamne nak boko beugé dundé dunde ah day gëna metti mais nak mais may ku mu doon yow di yow tamit liko dal dafa metti te xam nga kiné mom njaay rek la xam te njaay vraiment liko dal ni tamit vraiment ken yeno ko fi du placeu ken te xam ma jigen tamit li dafa metti dal, xam lu mu deuguer deuguer tamit am chëtëtëtët waa yow yow yow lan ngay wut fi ak lu sa yoon ci problème bi xam nga lu la doy mu la ko wane lijjanti ah man man vraiment nak man tay la waru nak ah man problème jam nga bëgg ko man dé suma léron né ne ñëw ci tribunal bi damay ak yow damay tok sama kër ba ki né ñib ma dem sétu ko ndax man aw maag yow benn affaire lijjantuuma la sax bàyyi ma yow indi wo mo fi dé té nga ma ba li jënti sa problème ko la fi Kiné moo fi indi ak sa Ndiaye. mu rek leen. waaw sama xarit yooyu ñoo ma fi indi. Kiné moom xëy na nga gis ko waaye Moussa Ndiaye moom fa mu ne Kiné sax laata muy jot ci moom lu ne la daj. man il faut ma xool naka laay def ba gis Moussa Ndiaye. il faut ma gis Ndiaye suma xarit ban état pour xam ban état la nekk vraiment nu mu mel intégrité physique am et tout ça xaw ma nag ndax dina yombam déet. mais man mi sax gisuma ko. man Moussa Ndiaye bi ñu ko jàppee ba léegi damay jaabante dem di ñëw dem di ñëw même ba te dégg gu ma ko bët. mais lu lu lay wax. Ah, lu tax tey sa dama insister ki ne ne ma mënoo koo gis may demal mais ñibbiwuma madame Guèye laay jaar fii dama koy xool ci bureau su ma fa jógee damaa bëgg a jël ki ne yóbbu ko sama kër. mais gis avocat bi. ki ne rek xam naa ki ne nga mën a gis mais jëkkëru ki ne moom doo ko gis booy kaa moom xam naa doone lenn Moussa Ndiaye sa yoon nekku ci xam nga lan la sooda am nga lu la doy. demal nga lijjanti ci seen kër ge ñak jom sax nak motax yow nga baña a ak man baña wax samay wax mais yow xam nga ni mos man ku baax ci yéen laa xam nga man kan la yeeram goor soo ko yërëme ndax yalla da dugg ci fami bo xamanteni fofu du place am yalla du juum waw déedéet waye gis nga problème bi mu am yow mi bok ak mom day ak bay nga yene ko ko man ni nga xamne bokut ak man dara dinaa ko boot dinaa ko rogganti te dinaa ci dem ak moom ba mu jeex ndax góor yàllaa koy fay xolam xolam dafa rafet te bu sa xol rafetee bul tiit bul ragal. ko bëgg a jël yóbbu ko fee ma nekk ndax fee ma nekk man kese ñoom maa fa nekk ñu demee ñu toogandoo ndax mu gën wéet tamit loolu gënul soo amee problème di wéet da gën a am problème su ko defee ñuy tëddandoo di doo bu ñu xëyee ñëw ba keroog ñuy am lu ñu leer ci mbir mi mais ki ne moom nii ma ko gisee man maa ngi dem nii mais sama xel daal. may li nga ma wax may vraiment déplané ma ci Guinée mais vraiment dama lay fekk si may solution proposition bi nga def moom baax na quoi parce que état bi nga ma wax ni moom la Guinée nekk lii wóorutul ah. ah ba nga gis lii moom jël ko ngay tëdd ak moom di ko defal xam nga di ko vraiment encourager parce que lii ay situation la rek dafay jeex. man nag tey dinaa def tout moom bu ma luxu sax dinaa def tout ah su fekke vraiment avocat bi mën na ma dimbali wala xawma juge bi xawma xawma dal nan lay def ba gis Ndiaye mais Ndiaye mom tay non te tribunal bi te duma ko gis. man dal goor lu mën def ba japp ci dal man fi ne man nga man def ko. waxo wax ji de fi nga wara dekk moy sa problème <laughs> yow xam nga ne dal man. man maya sama titre foncier gën a man say ma tëddee ne la man duma man xalaatuma lenn. man je très bonne condition xaw ma nu ma la ko war a làkkee damay bañ nga xoolal. xam nga yow fu ñu toll nii yow xaalis dalaa tiital yow xaalis ngay jaamu moo tax tey jii problème bi nekk fii yëpp nga créé ko man xam naa la bandi nga yaa ngi dégg sa xel li muy mbalax man xam naa ko waaye li ma la yégal mooy xamal ne yàlla gëmul nelaw gis nga doomu jàmbur bi nga xamante ni baax na yaru na nga jël ko bëgg ko ne ràpp ci biir yuuxu dina jib fañ ko foogewul yow li lay dóor mi ngi ci kanam atte yàlla moo gën bu nit vraiment maa ngi bëgg a jaaxle waaw monsieur Ndiaye léegi sooda boo waxee mu ne monsieur Ndiaye may nga wax mu ne monsieur Ndiaye ba bu fekkee da ngeen nopp monsieur Ndiaye léegi da ngeen koy wax xam naa kin ne moom ndeysaan mi ngi ci erreur pour moom ay xarit laa am te ñu koy suufu yow moom dangaa fet dangaa percuté xam nga lu la dese sooda yërëm naa la foofu fooy luweeti yow dangaa tol tollaanto fi nga xamale noo bëgg suukar waaye tey nga dee sama kër moom doo fa dugg sa doom du fa dugg góoro nag naa seet sama kii xol héberge ko booye boo génn daal man sooda xanaa géemoo li ma doo ko gis ah. def ko ndax lii metti na ba sa kanamu yàlla yàlla daal yal na yàlla leeral mbir mi képp ku ci am dëgg yal ko yàlla jox ndax lii ko natt sa bopp xam ne metti na sama xarit nag moom fi ne man sama bopp dafa jaxasoo ci madame Dieye laay dem su ma fa jugee léegi génn bureau damay ñëwaat yóbbu ko sama kër du ma ko fi bàyyi fii laa koy xaar ba pare. moo may amul beneen pexe. ah nooy def. yàlla baax na may def proposition boobu baax na yow it yal na la yàlla fay. amiin vraiment yal na la yàlla fay tànk yi. may def yàlla baax na yàlla baax na jërëjëf. mais loo man góor a jàpp si. jërëjëf ñoo ko bokk Ya, yaay Ablaye Ndiaye. waaw ah, monsieur le juge man maay Ablaye Ndiaye. yow looy liggéey. monsieur le juge man jàngalekat laa mooy sama métier enseignant laa. yow est-ce que mën nga ma wax la de viol nu mu demee. waaw ah, man damaa génn sama école fàttaliku ne am na benn livre bu ma soxla ma dem.

ah kan, je me souviens léegi Ramatoulaye na nga def. maa ngi fi bien. ça mais da nga la ah. c'est bien ça. ça va ça va bien mais qu'est-ce que tu deviens lan def non man sama bac ma dem étudier en étranger essai maa ngi ah mais c'est bien ñibbisi nga quoi. ñibbisi naa. mais j'espère que tu as trouvé un travail rek. ah ah bon. mais monsieur soxla de. ah bon mbaa jàmm.

mu insisté quoi naan na ma léegi parce que occasion la ça sama waa kër yi sama parents yi la parce que gën dañ la gis yàgg na mu waxee loolu nag ma xam relation élève ak euh, enseignant c'est une relation sacrée donc tout cas ñun loolu lañ gëm ñun jàngalekat ah ma xoolaat sama xel ma ne grave naa dem comme këram laay dem gisaale waa les parents yi ak yu demee noonu quoi donc c'est pas grave. Quoi, chérie Non, ne te mets pas dans cet état. Non. Non, chérie, bëgguma la gis ngi taseeg ma à craquer non ne craque jamais non je suis là on def Ablaye Ndiaye def. bul wax loolu bul wax loolu ana ana kinne bi ma xamoon la battante. la brave nekk que je connais ana Kiné mu dëgër mu jàmbaare mi. góor dëgg la damaa jaaxle góor góor a xoolal li dara ci sama kaw góor la laa def defuma dara sama jëkkër sekku la kenn xaama yàlla li antanatuma ko góor a viol mooy accusation bi gën a bon gën a ñaaw ci àdduna yaa def wala defoo. dëkk bi ñëpp dañuy wax ñëpp ay wax lu ñu xam ak lu ñu xamul soo ci génnee sax yow yàq nañ sa àdduna ba fee sa honneur man gisuma kenn vous êtes à mes guddi bu ma demee sama kër damay jaaxle. Kiné ñoo ngi ñoo ngi fii maa ngi fii maa ngi sa wet maa ngi sa kanam maa sa ginnaaw maa ngi sa càmmoñ maa ngi sa ndijoor Kiné bul déglu waxi nit ñi. nit ñi duñu wax lu rafet duñu wax lu baax yow xam nga Ablaye Ndiaye bu baax. à ma grande surprise bi ma demee këram euh, euh, sonné mun ma entrer ma dugg li ma njëkk a moom mooy elle habitait loolu nag xaw na ma gêné parce que man mag laa ñëw fekk xale bu jigéen boo xam ci appartement moom rek ça m'a gêné ma ci salon bi pour toog. mune ma jarul ngay tok sama bi kay ma kay dugal ci dugul excel ci neeg bi qu'est-ce que tu racontes comme ça yag na torop depuis depuis ba may nek élève ma la bëgg musse ça fait maintenant 10 ans

apparemment monsieur le juge pour comprendre la relation que nga am avec l'élève, vous comprendre une fois que vous euh, êtes enseignant vous êtes enseignant pour la vie et votre élève devient reste votre élève aussi pour la vie c'est une relation sacrée pour le donc à chaque fois que le maître ou l'enseignant a besoin de son élève élève bi dafay présent quel que soit son âge et quelque que soit sa situation sociale vice versa aussi loolu moo tax bi ma xalaataatee ma man ma bañ dem je vais vraiment danaa war sama métier parce que sama métier du jeex mukk ci ci sama élève te moom sama élève la encore bien que dama ko jàngal ëpp na dix ans loolu moo tax ma dem parce que dama doon xalaat conseil jox ko conseil boo xam amal na ko njëriñ et xëy na su ma xëy na conseil boobu ma koy ñàkk a jox mën na koo lor tamit loolu moo tax ma dem. Ablaye Ndiaye un honnête monsieur Ablaye Ndiaye yi jàngalekat bu am valeur pétri de vertu mais yow na nga dëgër parce que Ablaye yow la am. góor Ablaye yow rek rek la am. yaay léppam xam naa ko bu baax merci. bul nekk ci état seen compassion man dama koy yëg bu baax a baax a baax yaa ngi yëg di wàcc yaa ngi daw de gauche à droite góor la gis. xam nga kan lu tax boo dee entre le marteau et l'enclume li da nga ci xat fi nga ci nek mo xat. deug la nga iya, yenu lepp taxaway bi nga ci taxaw lolu moma lolu moma gatchal sama digante sama iya. yow. deug la ki ne mais li am solo rek moy deug lañ faral sama position metti na trop mais fi deug fété rek la fété té xamna ablay ndjay yegna ko bu baax. man nak xamna ni après damay jema gis avocat bi fexé nan lay décrocher audience pour ma gis ablay ñay est-ce que di ko gis nguur man bu ba légui ma ngi ben yoon la gis sama jëkkër. billahi tay ji lañ ma promettre que ni dina ko gis mo tax ma ñëw indaale mais man lu ma mën ba gis ko non ablay ñay suma xarit ablay ñay il faut mu xol nu mu mel nu mu toogee dinaa fexe ba gis ko ki ne. amna ko bu ba merci beaucoup gënal deugër merci gënal téye.

bu woon loolu duma fa dem te ba pare daf maa wax ne ma da ñëw rencontre samay waajur mais bi xamee ni bi ma demee sur place laa xam ni que voilà vraiment waxul dëgg. moom rek moo doon elle vivait mm-hmm. moo tax euh, monsieur le juge. parce que sa jabar yëg nga ni mu ngi yor ay appel téléphonique euh, anonyme concernant ce viol. <sighs> monsieur le juge yëg naa ko wax na ma ko et loolu bi bi muy premier appel bi mu njëkk a jot vraiment ça l'a rendu folle. bi ma suis indi na ma ci coow bu parce qu'elle ne s'attendait pas à ça mu indi ma ci coow mais après je lui ai expliqué calmez ko calmez ko calmez ko mais finalement Le coup de fil est continué..! Mais finalement ça m'a démystifié quoi parce que chaque jour tu as un coup de fil c'est du lii c'est du C'est c'est du lii mmh. mais bon vraiment je nekkoon lu doy mais loolu lieu, j'ai compris que c'était pour m'enfoncer davantage ça sama sëy mais aussi vraiment yàq sama ma daal coup de fil yooyu yow sa xel amul ci kenn ko xamni dem na ca ou pas. pour ne pas vous mentir monsieur le juge wax deug yalla bima ma bima waxé lolu première fois bi wax ma une deuxième fois sama xel amna na fu mu dem deug deug mais je voulais pas le dire parce que ma togn te bëgg parce que amu ben preuve mais wax deug yalla sama xel amna na fu mu demoon. sa xel ci kan la demoon. xam nga eh, famille eh, bi ma xam ne moom laa amal problème man waxatuma sax wax rahmatulaay mais yaayam ak papam dafa mel ni ñoom affaire bi ñoom la te loolu dama ko comprendre dama xam lu tax nag xaw ko mais dafa mel ni affaire bi ñoom la ñoom ñoo gën a yàkkamti que seen doom sax pour ñu tëj ma loolu dama dem ba sentir ko parce que man jàkkaarloo naag papam jàkkaarloo naag yaayam

pour bi lii amee nga retirer sa plainte